713 vingt 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax alxamis fukki fan ak juróom ci weeru décembre ma di leen dalal jàmm ci xibaar yi bokk na ci ponk yi ci gën a fës plainte ga ministre Mame Mbaye Niang teg ci ndoor di njiital kuréelu Pastef ki Ousmane Sonko waral division des investigations criminelles woolu ko ni ki démb ba daal di koy déglu danañu leen dikkal ci tolluwaayu dossier ga ñeel coowal ñaari député wu PUR yi di Massata Samb ak Mamadou Niang nga xam ne rek jamono ji dañoo nekk yoon ndax ab dagg-dagg gu seen digganteeg parlementaire gi di ci digg xibaar yi coowal njublang ji am ci passeport de service yi ak itam taxawaay ga ca ministère des affaires étrangères amal xibaar ya Ousmane Sonko joxe tamu soxal rek Barthélemy Diaz ak njiitu réew mi Macky Sall moom la ñu koy ndar keppe ni ñu koy defee saa su ne mbokk yi ngeen taxirluwaas lëf bàkk ba jib ma daal leen koy yaatalal mu ngoog eh, bàkk ba jib na nuy naa leen bu baax a baax yéen ñi safoo di ñu teewlu ci Sunugal 24 dal leen jàmm ci eh, xibaar yi Ousmane Sonko division des investigations criminelles dal dina koy woolu ni ki démb ba déglu ko ginnaaw ab plainte gu ministre Mame Mbaye Niang teg ci ndoddam eh, jëwriñ ju ñu dénk wàllum tourisme dafa saisiroon procureur moom it mu jébbal dossier bi division des investigations criminelles muy doxal l'enquête gi ci noonee la ñu yónneewee Ousmane Sonko ab convocation Mame Mbaye Niang nee na njiital kuréelu Pastef gi da tuumaal ci la ni rek dañu ko épinglé ci ab rapport inspection générale d'état ca passation de marché wu Prodac gi booba ma nga ne woon rek ministre de la jeunesse ñaari député yi lee di Mamadou Niang ak Massata Samb ñu tegoon leen loxo ci coow Lamine Ndiaye ñibbi niki démb la ñu waroon a janook procureur de la république waaye dañu amaat retour de parquet tey jii lañu ñu waroon janook parquet wu Ndakaaru ñu daal di jël ndogal ci ñoom bu weesoo coups et blessures ña nga di leen toppee itam tuumaay menace de mort te sa la ñu sukkandiku moo di seen immunité parlementaire ñaari député yi dañu leen dut baaraam ni dañoo agressé parlementaire gi di Amy Ndiaye Gniby ca assemblée nationale ba su le 1 décembre talaata gi weesu la ñu leen mujjoon placé en garde à vue lu bees daal dinay juddu ci braquage ga mujjee woon ci ab jéeya te xewee woon ca marché central Mbour ci benn bureau de change ñu tegoon loxo lim ba tolloon ci juróom benn dem na ba fukk ko jiite di Ali Kouyaté yi jàpp nañu frère Ali bi di ko toppee association de malfaiteurs malfaiteurs ak recel de malfaiteurs loolee itam la ñuy toppee ACC di kenn ci ay xameelu Kouyaté ñoom ñëpp la ñu defeere parquet wu Mbour Ali Kouyaté moom ña nga di ko toppee double assassinat tentative d'assassinat vol en réunion commis avec usage d'armes ak itam blanchiment de capitaux yeneen ñaari nit yu mu doon ci àndal ci ay braquage ña di leen toppee vol à main armée en réunion recel d'objets volés association de malfaiteurs faux ak usage de faux gannaaw bés yi yëpp division des investigations criminelles daal dinay démantelé geneen réseau gu di ci trafic gu passeport de service euh, ministère des affaires étrangères jël na ca sax ndogalu dakkal passeport de service yi ñu délivré woon diggante 1er janvier 2021 ak décembre 2022 teggum nañu loxo nag lu tolloo ko juróom-ñaari nit àllax day démb gi euh, ca biir ambassade des États-Unis fii si Ndakaaru ginnaaw ba fa demee ngir teewee woon benn forum ni ko l'observateur di xamle euh, ginnaaw yëg ni dañu yor ay faux documents de voyage euh, ci la ñu saisiré division des investigations criminelles ñu jàpp leen benn juriste bu jigéen sant Tandia nekk ASEPEX lañu ñu dut baaxam ni moo jiite njublankat yi soxna si di A Dramé nekk informaticienne waa ji di A Babou chef d'unité départementale bu sp i Ndiaye tailleur G Diallo chauffeur ak T Ndiaye mi nga xam ne rek àpp jula la nee nañu juróomi million la ñu versé ndaw sa ngir dem ci réew États-Unis ña i nit yu nekk ay ndombol tànk tënk ci nguur gi talaale ci googulee coow weeru novembre lañu ko jàppoon gannaaw ab live gu mu doon def ci réseaux sociaux yi moom Pape Alé Niang mu ne woon nag ca prison wu Sébikotane aljuma ji weesu patron wu Dakar matin gi janoon ak juge d'instruction bi donte yaramam dafa xawoon sutante ndax ab grève de la faim gu mu tàmbali woon ay avocat wam dugaloon ab demande de liberté provisoire ginnaaw bi ñu dégloo seen client ci fon wu dossier gi ba noppi démb lañu ko may liberté provisoire niki noonu na ay mbind ci réseaux sociaux yi doon gërëm ko tax taxaw rawatina rek naataangoom yi nga xam ne doon nañu wàcc sur le terrain yéen woon rek lii di xeex bi moom Pape Alé Niang donte am na liberté provisoire ba ñibbi këram dafa daal di tënku rek ci ay conditions yu ko juge bi tëralal bi ci njëkk moo di directeur Dakar Matin gi dafay émarger ji weer wu ne ca bureau juge bi tere nañu ko mu génn réew mi tere nañu ko it mu àddu ci dossier bi maanaam waru ko waxtaanee ñëpp di ci jot lañu ko toppee nag moom taskatu xibaar bi mi ngi yemook diffusion d'information militaire non autorisée autorisés par la hiérarchie recel de documents administratifs et militaires ak diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur les institutions publiques lu bees la dina ci vente illégale de terrain ga féete rek ca domaine public ferroviaire u gi major Alioune Badara Kandji ma ñu doon ca tudd weeru juin ba ndëgg ni nanguwuloon wuy ji l'enquêteur yi xibaar yi xam le ni nag major gendarmerie nationale gi nga xam ne rek dafa dem retraite wuy ji na alximisu tey ji convocation u woon ci ay bërëbi commissariat centralu Kaolack koppar ga mu bañ a delloo ña ngi ko xayma ci ñaar fukki million ak juróom ku ñu naan MC di borom danañu leen toppalaata bépp xibaar bu ci bawowaat l'enquêteur yi yor dossier wu kawteef ga amoon ca marché central Mbour dal dinañu amal ay gëstu nag ci fetel ga Kouyaté fate ay nit euh, moom Kouyaté dafa ne woon rek ca tuuba la jëndee woon fetel gi ci fanweeri junni dong waaye nag ndeke fetel ga dañu ko sàccoon ci benn kër franco-sénégalais gu sant Bass dafa soluñu turam foofu ci diwaanu Thiès euh, ci braquage googu sax jële woon nañu fa koppar gu takku lool fetel ga nag jaax na ci kii ñu naan A ak P Bakhoum di xam ne ni moom la ñu sàccoon yëfam Ndiaye ak baaxum ñoom ñett ñëpp defeere nañu leen parquet wu Mbour di leen toppee détention d'armes sans autorisation député Mame Diarra Fam ba mu jëlee kàddu dafa daal di rek dal ci kaw njiit l'Assemblée nationale gilée di Amadou Mame Diop di ko dut baaxam ni moo seetaan xeetu violence ngay am ci Assemblée nationale maam Diarra xamal na ko ni rek mënul jiite député yi ndax mënul nëbb fa mu fare bu àddoo rek nga xam ni dafa jël position maanaam dafa féete te loolu du cëram député wu wàllu Sénégal nag dal dinay barkeelu waale ci ñaari naataangoom doomam yi lee di Massata Samb ak Mamadou Niang la mu bëgg moo di ñu bàyyi leen ndax nee na askan wee leen fi teg mbirum viol bu ànd ak grossesse la chambre criminelle bu tribunal d'instance su Tambacounda doon a at te mu soxal Ousmane Sow mi ñu gën a xam ci Ousmane Ndiaye toll ci ñaar fukki at ak benn di ab mécanicien ñu duut ko baaxam ni dafa sàkku ab gu nekk fukki at ak juróom xale ba ñu ni doom la rek ci magu jabaram loole terewul nag Ousmane Ndiaye dafa di tuuma ya ba yëf amee nag gune gu jigéen gi di yëg métit yaayam Salimata Ba dal di ko yóbbu kër docteur ñu xamal ko ni doom ji dafa wan lor yaayam laaj ko moom itam mu xamal ko ko ko ëmbal waa kër Tambacounda ba su ñaar fukki fan ak benn ci weeru septembre atum 2021 xale bi nee na it waa ji sekk na kook moom lu tolloo juróom yoon ca néegu maamam Ousmane Sow taxul mu nangu dakkat nañu àtte ba ba juróomi fan ci weeru janvier atum 2023 ba moytuwulee nag dana tëdd fukki atu kaso fii ak ay fan yu néew nag yoon dana addu rek ci mbirum coordonnateur mafia kàcci kàcci gi lee di Ousmane Diagne ak Pape Ibrahima Gueye mi ñu gën a xam ci Papito Kara ñaari militant u Pastef yi lu tolloog ñeenti weer a ngi juge d'instruction bi baleen ca kaso ba juge bu ñaareelu cabinet bi déglu ci teewaayu seen avocat maître Cheikh Khoureyssi Ba moom mi la sax déposé na leen nupp demonde de liberté provisoire ña nga di leen toppee diffusion de fausses nouvelles effacement ak modification des données de journaux Pape Ibrahima Gueye nee na ñu dafa defoon rek revue de presse ci ay journaux yu nga xam ne dañu ko modifié Ousmane Diagne moom ñoo ngi ko yóbbu kaso ndax ab partage mu def ci Facebook bi boole ca ñetti emoji di reetaan avocat wa maître Bamba Cissé xamle na ni amul benn journal bu ko ca porté plainte Ousmane Sonko moo joxe yile xibaar doon wax ni rek njiitu réew mi Macky Sall dafa nekk ci ay tànki retiré kii di rek Barthélémy Diaz ci ay mandaawu député ak meeru Ndakaaru ga mu doon njiital kuréelu Pastef gi nee looloo di bëgg-bëggam moom Macky ba tax na rek ñu di ko yëgal askan wi yëpp ma nga